سفر بمثث حجة صلى وسلم بلا انتهاء على النبي الله ذو فتح لي فتحا هداني ربنا في ذكره وخمسه وفي البناء رفعت أقلامي مع المداد لله والرسول ذا أمداد بارك لي في عمر الله الكريم وخاد لي سعادة ليست تريم مد إلي الله فضله العظيم ولفؤادي نزع الدر النظيم سقاني الباقي بلا إعواج لغيره قبل لدى الأمواج شرح لي صدري لدى رجوعي لبلدي وسانني عن جوعي jërëjëf sant gii nga sant yaa yaa ñëpp ko bokk. dëgg la yaa ngi mboolem taalibe yi yéen ko bokk. dëgg la sant sëñ Tuubaa rek. dëgg la waaw sant sëñ Tuubaa rek. dëgg la waaw lii lépp lépp tawfeex la. dëgg la tawfeex am moo ñu moo ñu gindi. moo ñu wommat. dëgg la nii rek la demee. alhamdulilah tawfeex sëñ bi dong la. moo ñu gindi moo ñu wommat. alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf yéen ñëpp yéen. waaw ah, ñun yéen yéen ñun seqal liggéey bi. waaw ak mboolem taalibe yi. waaw ah. képp ko xam ne sëñ Tuubaa bi ci xolam ñun ñëpp ñu ngi leen di sant. di leen di kañ. waaye di leen soññ. la waaw a soññoo. dëgg sant ak soññoo rek. dëgg la di gën di sant ak soññoo rek. waaw fu mu ne nañuy sant sëñ Touba. waaw ci liggéey yi rek la. incha allah ne. nañ sant sant sëñ Touba. dëgg la sant si sa soñ suñu bopp. dëgg la jëm ci liggéey sëñ isaan si murid yëpp mooy ñu fi nekk ñu teew ñu ngi ci ëllëg yi ba ba ba ba bis penc ba bis penc ba rek waaw dañ ko ba rek waaw bu ñu yëpp dañu jóg gën a gën a soññ seen bopp ginnaaw hmm. bu ñu sante seen Tuubaa yàlla rek tax hmm. gën a sant seen bopp hmm. gën a soññ seen bopp dëgg la jëm rek sëñ Tuubaa tey bi sëñ Tuubaa kon ñooñu sëñ Tuubaa jëfandikoo ñooñu ñi ñëwagul ba ba bis nañ ko dëgg seeni déglu kon nag loolu daanaka ci gàttal moom la seen Cheikh bëggoon na mu ne gën yeesa man nag danaa ci teg dara loo xam ne mu dugg mu doog a mu jëm ci moom seen Cheikh bi ci turu boole lu aju ci seen dëkk lu daal ñu laaj teel na kat yi lu tax damaa xam ne bi ngeen wootee sa woote lii ñëpp ñëw ñu si la donc bu fekkente ne moom ci boppam jëriñ tool bii day génne ko laaj daal ñu ñu ñu gis. kon nag ci turu daal ñu gën jëkk dañ koy sant di la ko seet ndax lii mu def kat yaakaar naa ne bu ko defutoo a doy ci moom dañ koy ñëpp dañ koy def waaye comme lu mu màgg teel li mu lay léegi ci liggéey daal ci woon par exemple dana mel ne dangaa woote. nenek lu jalan gua dari dia gua dia lo anda anda di berita berita berita berita, tali susu susu suci suci lagi itu dah kami selalu anda di luar yang orang teman teman jauh looloo tax ñëw Cheikh bi liggéey bi lu am solo lool ci ñun waaw ci ñun ñi nga xam ne ñu naan jigéen ñi ñu jàng ñun lépp loo tax lii ma lay wax ci turu boo leen dox seen bëccëg ak ci yow moom laa la koy wax loo koy ndax ñun ñëpp la. waaw kon nag loolu dafa ko mën a seet moom waaye moom li ñu doon kees rek moom ak daan bi leneen yëngu ko dund ak daan bi loolu seen leneen du mat bëri fii waaye yaa xam ne si tubaab bi tubaab bi yàlla àggale ko ci la wéree. loolu ko ci yow. xam ne boo ñu def dara si tubaab boo def seet bu ñëw bu ñëw da koy def. projet bi suñu laaj loolu ñu ko ñoo war a am lépp lii yaa ngi leen ko koy def du jàppoon rek lenn lu denc wala lenn am ci yow waaye daa xam ne lëggee suñ tubaab boo ca nekkee lépp ñëw waaw da nga xam ne da nga koy jéem kon nag looloo tax ñu gën a jaay leen ci loolu waaye li taxoon ñu gën a def moom mooy seet suñu cant ci moom ndax wax dëgg yàlla li mu def ñun ñëpp daal ñun ñëpp لنادم هاتين القصيدتين المعروف عند الملأ الأعلى بالعبد الخديم كان له بكرم الباقي القديم والله على ما نقول وكيل باع الله تبارك وتعالى عن كاتب هذه الحروف ثمانية وعشرين مالي ب ص ش ب م م ك ج ه ذ ذ ذ ذ ق ق س ن ج ذ ه خ ح ر ل ر م م ن واشتراها منه بثمانية وعشرين أبجد هوز حطيا كلمنا صعفض قرسة فخذ ضغش سفر همتش سفر به سفى حياتي من هداني عارفا به وسرت من فيود خارفا